الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين bokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nu ngi ñaan suñu boroom ci tawfiqam ji ak yërmandeem ji mu defal ñu tawfiq ak taysiir ci suñu mbiri àddina ak suñu mbiri àllaaxira di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu dotti ay xéewalam ak yërmandeem ci kaw yonent bi ak ay saxaabam ridwanullahi alayhim ajmain suñu borom defal na tawfiq ba keroog ñuy dajeeg moom am gërëm nu ngi daje tey ngir fas yéene am ab tomb bu am solo bu ñu am yéene nafar ci suñu wàllu diine suñu bokk suñu mag ci daawa ci xam-xam di ñu ko defal muy al ustaas saayib li ñàkkul ci ñun ñu ko xam di ñaan borom bi subhanahu wa taala an yusaddida xutaa te dëgëral ko defal ko tawfiq ak taysiir ci lëggéeyam ak ci njabootam amiin yaa rabbal aalamiin waxtaan wi ñu ngi koy def ci kersa alxayaa jamaalun fi lmara wa fadilatun fi rijaal jikko boobu ñuy wax kersa nga xam ni jikko na bu am solo ci jikko yu gën a kawe yi nga xam ni borom xam-xam yi dëppoo nañ ci jikko yu gën a foor ndax jikko yi jikko yu baax yépp a baax waaye dafa am xeeti jikko yoo xam ne jikko yu foor la te kawe jikko yooyu bokk na ci jikko ji ñuy tuddee kersa kersa nag taar la ci jigéen man dafa mel ni bu fekkoon te ni mbubb la mu jigéen sol dañ naan jàpp na ko lool dañ naan bu fekkoon dafay wut lu ko dolli taar jigéen ji bu amee kersa moom kon taaru na su dee ci góor dañ naan baax na ci moom comme ni jigéen waaye nag ay ngëneel la koy jural bi maanaam moom fu mu tolloon rek bu dee yàlla may na ko kersa loolu da koy dolliwaat ab gën a kawe kon du ñu guddal ci di faram-fàcce waaye dañ koy ñaanal borom bi soxla mu feeñ ci làmmiñam leeral dënnam boole ñu ci ñi nga xam ne istami'u qawla fayattabi'una ahsana falyatafaddalu mashkuran
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokki jullit yi di am mbégte bu baax ak kontante ci ñëw ci barab bi fekk si fi doomu ndey yi mbokk yi nga xam ne du woon tey mais démb la ñu nekk ay rakk yu baax yoo xam ne jaar nañ ak ñoom fu nekk ba yàlla subhanahu wa taala dogal ci ay mbiram lu mel nii tey ñëw fi di leen ziar ak ñu jël tomb bu mel nii daje ci ak ñoom di ko fàttalante sunu biir ñu ñaan buur yàlla subhanahu wa taala yàlla na nekk ay tiyaaba ay yool yu ñu yàlla di fay ñun ak ñoom ak yéen waaleykum salaam wa rahmatullah mbokk yi tomb bi ñu jël oustaz wax na leen ko léegi mooy alxaya jamalun fil mar'a kersa mooy taaru jigéen bokkoon na ci li ñuy xàmmee jigéenu jullit ci ngëm yàllaam ak diineem ak jikkoom ju rafet mooy ñu gis ci moom kersa moo tax ni mu ko waxee noonu la kersa bu fekkoon ne mbubb mu ñuy solal nit mu koy jot kenn du ko wàññi kenn du ko yokk danan fekk mu nekk mbubb muy jot jigéen moo tax ñu ne jamalun fil mar'a taar la ci jigéen waaye wa fadila fil rijal ngëneel la ci góor ñi waaye ci jigéen ñi ci ñoom kersa la bokk na ci nattukaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan natte jigéen ñi bu ñu leen daan labat pour ñu xam ndaw si nangu na wala nanguwul wala bëgg na wala bëggul suñ ko laajee ab laaj ne ko yow waa ji de yow lay labat si loo ci xalaat bokk na ci niñ doon xamee ne ndaw si nangu na mooy mu am kersa bañ a tontu léegi nag sunu jamono xam ngeen ne soppeeku na daanaka li jullit ñi njëkk a ñàkk tey ci diine bokk na ci kersa ci jigéen ñi ak góor ñi ci mag ñi ak ndaw ñi egg nañ foofu yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ne inna allah iza arada an yuhlika abdan nazaa minhu lhaya yàlla bu nammee alak alak ak jaam yàlla bu nammee toroxal jaamam lan lay njëkk a def ci moom mooy day nocci day rocci kersa ci moom dootul am kersa lu ko neex def ab jullit bokk na ci màndarga yiñ ko doon xàmmee mooy mu am kersa waaye kersa googu it dafa am ñaari déggin yiñ ci war a dégg yaay Aysa nee na yal na yàlla yërëm jigéeni ansaar kersa du leen tere laaj seen diine maanaa kersa du tere nit laaj diineem ci wàllu diine nu nuy jaamoo yàlla lan moo wér lan moo wéradi lan moo dagan loolu kersa amu ci jàng nañ ci quraan yàlla mu ne inna allaha laa yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha moom sunu borom sax subhanahu wa taala moom sunu borom subhanahu wa taala sax ci leeralal nit ñi diine moo tax kersa amul digganteem ak jaam ñi lépp la leen leeralal bàyyiwul dara pour jaam ñi ëllëg du nu mun a am benn lay wu ñuy wax ne nangam bii mbokk yi kon nanu bàyyi xel bu baax dañu war a delloo siwaat jikko diine ndax ñaar yi ñoom ñooy ànd muy ngëm ak kersa moo tax ñu ne alxaya jamalun fil mar'a kersa day taar la ci jigéen jigéen du mbubb moo koy rafetal du diw moo koy rafetal du yu ñuy rëdd di ko pacc paccal wala capp cappal ci kanamam du kol du dàll du mariage de couleur du loolu mooy rafetal jigéen jigéen li koy rafetal mooy kersa moo tax ñu ne alxaya jamalun fil mara tey nag ñun lu ñuy rafetal mooy lan sangu diw wala léeg-léeg sax comme seytaane léegi moom li gars yi di wax dafa rax day dem sax léegi ba dugal jigéen ñi dund diine xeesaluñu normalement mais mën nañu leeral ah man de dinaa laal tuuti dinaay faral di laal pour lan dama bëgg a rafet waaw du may def mu fés sax waaye dinaa ci dinaa ci xaw a capp cappal daal mbokk yi jigéen li koy taaral du yére du dàll du saak du kol jigéen li koy taaral mooy jikko ji ñu naan kersa moo tax yonent alayhi salaatu wasalaam mu ne alxayaa xayrun kulla kersa léppam yiw la kenn musul gis dóor leen ko lu mu def dafa bëri kersa kenn musul dégg loolu rey leen ko lu mu def dafa bëri kersa toroxal leen ko lu mu def dafa bëri kersa déedéet kenn mus ko dégg koo gis ñu koy wekk mu am sutura ñu respecté ko lan la mooy kersaam moo ko yóbbu foofu moo tax yonent alayhi salaatu wasalaam mu ne kersa léppam yiw la maanaam amul pertement léppam amul benn wala ñaar wala ñett wala ñu koy xaaj ci digg bi déedéet moom kersa léppam rek yiw la ak fu mu la mën a fekk ak barab boo mën a dugg yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nee na loo ciy jële mooy yiw waxaat na ci yeneen wàccuwaay alxaya suba min subil iman yonente nee na kersa xur la ci xuri ngëm yàlla yi maanaam ngëm yàlla buñ ko doon xaaj ay xaaji xaaj di ko placé ci ay barab danañu fekk kersa muy mbir moo xam ne am na ci wàccuwaay am na ci place mun demee nag tey ba kersa googu jikko jooju nekkoon jikko ju yàlla gërëm ba boole ko ci ngëm ñu dem ba commencé di ko ñàkk wala genn wàll gi yëpp dem ba noonu delluwaat xool lan moo tax dëkk bi mel nii lu tax nit ñi mel nii lan moo tax tey nit ñi dangiiral lan moo tax ndoxum kersa jeex ci kanam yi ci góor ak jigéen ñi lan moo tax jullit yi mel nii lan la ñu ñàkk feebar bi sax ñun def noo yóbbaale parce que léegi dañuy dem ba même ci wàllu waxtaan yi luy defar jikko yi dootuñu ko wax te yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo defaroon saxaaba yi mais lii la leen defare waxtaan ci ñoom lan mooy kersa lan mooy jikko lan mooy maandu lan mooy amaana lan mooy sidq ba nit ñi xam ndeke su lii nekkul lii mënta nekk ndeke kenn mënul am banqaas kenn mënul dagg banqaas te amoo garab kon lépp lu ñuy dimbali pour ñu mën a am garab pour ñu mën a am banqaas mooy garab gi ñu suuxat ko jëmbat ko samp ko benn waay dafay wax ne bu ñuy gor garab am ku langaamu ci banqaas yi naan man duma daanu mu ne kooku xamul fu mu jëm ndax garab gi buñ ko goree ci suuf ba pare yow moom langaamul rek waaye yàgg yàgg di nga séen sa bopp ci suuf kon noonu la ñu def li ñu def mooy bi ñu bëggee dindi nit ñi lislaam ci ñoom lan la ñu dindi mooy kersa moo tax yonente alayhi salaatu wasalaam mu ne inna mimma adraka nnaas min kalaami nubuwa al ula ida lam tasta fas na ma shita yonente nee na bokk na ci li dab nit ñi ci àddina ñu fekk ko wax yonent yi wax ko mooy bu fekkee ne yow amoo kersa defal lu la neex waaw ku amul kersa moom defal lu la neex fas naa maa siit ndax kersa kersa moo doon teree def yenn yi jullit yal na yàlla yërëm hind keroog bi aayib di wàcc yàlla di wax yonent bi sooy jaayante ak jullit yu jigéen yi bokk na ci li ngay jaayante ak ñoom wala yaznuun bu nu njaaloo xam nga hindi bu mu déggee aaya bi lu mu wax mu ne ataznil xur ndax gor dina njaaloo ndax gor dina njaaloo moom loolu la dégg xoolal kersa da ngay dégg même fii ci dëkk bi ñu ne la démb suñ doon tuumaal nit dara ñu ne ko yaa def nangam ñu ne dañuy waat lan lañ doon waatee duñ taxaw jël téere ne billaahi wallaahi wala déedéet dañuy teg dañuy tàngal weñ ba mu tàng rek jaasi wala weñ rek ñu ne acca jàpp ko nga gis waa ji ñëw daal di koy jàpp ah wala mar wala ñu tàngal salaan ba mu tàng jër ñu ne la na nga ko teg salaam mi nga gis ku jël di ko teg teg dara du ko ci fekk te boobu sax ñooñu dëgg-dëgg pas-pasu diine bi ñuy wax amul woon ci ñoom pas-pasu diine boobu ñuy wax bu dëgg comme ñun bu nu mu leera ci ñun tey ñooñu eggu ñoon foofu waaye lan dañoo dëgg woon dañoo dëgg woon am kersa ci def lu baree baree bari nga wax mu ne la man du ma def lii parce que man gor laa waaw man du ma def lii lii gor du ko def mais xoolal tey gor yi ni mu bëree xoolal nit ñi niñ bëree xoolal jullit ñi niñ bëree waaye xoolal jikko yi li ñu yàqoo xoolal bis bu nekk nga dégg ci rajo bi ci émission boobu ñu naan tës wala leneen ak leneen ak leneen ak yeneen yeneen yi nga dégg ci yoo xam ne ndekke jullit yi yegg nañ fii dinaa leen jox misaal rek bu ndaw mooy buñ daan xas jigéen dañ naan ko loo alku alku alku war a am doomu mbër jigéen bëggul woon am doomu mbër démb tey tey ku ku ëmb da nga ne da ngay dem ci benn sëriñ ne ko ñaanal ma ndax sama doom bi nekk mbër te démb jigéen bëggul woon jur mbër mooy kersa moo fi jeex ku nekk rusoon nga même boo da ngay gis koo xam ne rusoon nañu ne doomam dafa ngemb wala doomam waykat la wala doomam fecckat la mu ne man rus naa dajeeg samay nawle ñu ne sama doom mais tey da ngay gàddu jàpp ci loxoom yóbbu ko ba ci kilifa gi gën a mag ci kilifa diine nga ni ko kii sama doom la maa ko jur dafa bëgg a nekk mbër wala dafa bëgg a nekk footballeur wala dafa bëgg a nekk fecckat dama bëgg nga ñaanal ko kon kersa moo jeex yonent nag ne alayhi salaatu wassalaam nit su ndoxu kersa jeexee ci kanamam yonent nee na def lu ko neex soo rusul yow nekk ci biir saal bi ci biir kër gi ci biir néeg bu mujj ba ñuy dégg salaam miñ ci bedd soo rusul wax yu ñaaw wala ay jëf di bàyyeekoo ci yow di tas yonent bi neen defal lu la neex yonente alayhi salaatu wasalaam doon na jàngal saxaaba yi kersa mu ne waaye ngal la waaye rus leen yàlla dëggi-dëggi rus saxaaba yi ne ko wa ma xaqul xayaa ya rasulallah yow yonent rus googu lan mooy àqam dëgg-dëgg mu ne an taxfaza rasa wa ma waa ngal la waayi sàmm leen seen bopp ak la mu ëmb soo xool bopp nga koy jàng bopp ak la mu denc bët fu mu nekk ci bopp nopp fu mu nekk al uznaani min ar ras nopp fu mu nekk ci bopp gémmiñ fu mu nekk ci bopp yonent ne kersa mooy nga aar bopp bi ñoŋal ko ak bopp bi la mu ëmb nga lawaay sa sa bët yi rus cee xool lu la yàlla xolloowul dafa am benn boroom xam-xam bu silmaxa woon ca Égypte ñu koy wax Cheikh Abdul Hamid Kishk lenn ci ay boroom xam-xam yi moroomam wala lenn ci waa réew ma dañ ko daan xasee silmaxa la xamul dara ci li muy wax dem jàkkaam di fa julli wala di ko déglu muy xutba amul importance parce que kii silmaxa la loolu lañ ko doon xasee wax ji di raam di raam ba benn bis ba mu jot mu ne ñooñu di ma xasee ne dama silmaxa mu ne man maa ngi sant yàlla ci xéewalu silmaxa alhamdulillahi ala ni'matil amya gaa yi ne ko waaw lu waral loolu mu ne sama ñaari bët yii du xool lu xaraam xoolal kooku fi mu toll kon kooku dégg na li yonent bi ne ay bët dañ ko war a aar waaye ndax bët rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi jàngale ne ku bëgg am ngëm mu ne sàmmal say bët tey li tax mënuñoo am xalaawatul iman mooy sunu bët yi mooy rëcc te nit su tee ay boppam rek waxuma la ay weer waaye une semaine soo ko sajjee xef rek yëg xalaawatul iman ci sa xol une semaine wala benn journée benn journée boo xëy nga ni tey duma xool lu xaraam fajar ba gee di nga yëg bànneexu ngëm yàlla ci sa xol moo tax alquran di ñu wax ne qul lil muminin yaxuddu min absarihim noonu la ko waxee jigéen ñi encore yaxdudna min absarihinna waxal jullit yi góor yi nañ sajj seen xef yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na an nazru sahmun min sihaami iblis xool mu ne fett la ci fett iblis yi mu ne bu nit tee ay bëtam sajj ko rek day yëg bànneexu ngëm xoolal ci xool awra jàmbur yonent bi lu mu ci wax laana allahu nazir wal manzur ilay yal na yàlla soril yërmande ki ñuy xool awraam ak ki kii xool awra bi maanaam jigéen ji futteeku def yaramu neen wala góor gu futteeku def yaramu neen xoolal li may faral di wax ci loolu ci seetaan làmb léeg-léeg nga gis ay mbokk yoo xam dañuy fomm programme ndax làmb juru sàngam dañ ci am programme nga dégg ku ne la non non calendrier bi xool nga ko nga ni lu ci xew ñu ne la bis dimanche boobu diw ak diw dañuy bëri nga ni waaw léegi nag ñu ne ah xam nga ne moos nit ñi duñ ñëw nit ñi duñ ñëw léegi nag dañ koy fomm wala lenn de buñ ko fommul na ngeen teel a ñëw 3 heures su ko defee ay 5 heures waxtaan wi mën a jeex nit ñi mën a yeeweeku nit ñi mën a yeeweeku dem fan. seetaane làmb damay wax ne seetaan làmb li muy araam araam araam araam araam ci góor ñi ci jigéen ñi la gën a araam waxuma ndax làmb dafa araam de loolu moom may sutaat seetaan ko laa wax ma ni li muy araam araam araam ci góor ñi ci jigéen ñi toog la gën a araam lu tax yéen góor ñi bu ngeen doon seetaan làmb jigéen boo doon seetaan làmb jigéen nga gis jigéen ju ngemb nga koy seetaan ñaari jigéen yu ngemb taxaw sa kanam nga leen di xool est-ce que yow xale bu góor bi sa sa bët ci ci ci leewaatoo bi rek lay yem wa naka noonu ku góor ki naka noonu ku jigéen ki toog ku jigéen ki toog di seetaan ñaari ponkal yi simmeeku ngemb mu leen di xool nga defe na ay bëtam ci leewaatoo yi rek lay xool ak ak kurpeñ yi benn benn oustaz nee na ma benn oustaz nee na benn maire da doon seetaan làmb mànga la woon mànga nee na maire bi di xool di xool di xool ba ci yàgg mu ne ci mànga yi mànga mi poojam yi kum ci kepp gis nga xelam fu mu dem léegi nag kon naka la ab sunit bu gëm yàlla am pas-pas aqida bu set ay toog di seetaan làmb toog di seet góor goo xam ne ay awraam yëpp a ngi ci biti aw awra yaa ngi ne dum te loolu tey boo demee suñu biir kër yi daanaka yal na nu yàlla yërëm ñu ci ëpp ci ñun waxuma sax dañuy seetaan làmb waaye dañoo am mbër dem naa ay kër yoo xam ne biñ ma joxee album bi ma ni nii ubbi ay mbër laa njëkk a gis ci photo yi ay mbër ma ne waaw lii nag ah lii kat léegi dafa xew mais dafa xew ba ñun yóbbaale nu ñun kay lii warul bokk ci ñun lii ñun waruñ cee bokk kon nanu xamaat suñu diine nanu jéem a dundaat la baaxaloon ñu njëkk ña loolu dong moom la ñuy baaxal ndax loolu la imaam Malik wax la baaxaloon saxaaba yi ñu góor ñaak ñu jigéen ña wóoroon yonent bi alayhi salaatu wasalaam wallahi loolu rek moo nuy baaxal tey mu leneen mun nu baaxal ci kaw suuf kon yonent bi nee na bu nu bëggee am kersa dëgg wekk yàlla dëgg dëgg wekk bopp lépp lu ci aju nañ ko jox àqam ci bët yonent bi mi ngi nettali ne ëllëg yowmal qiyaam bu nu taxawalee nit ci kanamu yàlla ne ko xoolal say bakkaar mu bëgg a weddi yàlla day tëj gémmiñ gi al yawma naxtimu ala afwaahihim su yàlla tëjee gémmiñ gi bët day wax ana lil xaraami nazar li araamoon maa ko doon xool nopp ne ana lil xaraami samiit li araamoon maa ko doon déglu gémmiñ ne ana lil xaraami akalt li araamoon maa ko lekk tànk ne ana lil xaraami masaytu fi araamoon maa fa doon dem loxo ne ni ala lil xaraami lamast li araamoon maa ko laal noonu la koy toppee noonu la koy toppee malaaka bi nekk ndeyjoor ne ana katabt ki nekk càmmoñ ne ana shahat yàlla ne ana araftu wa satart kii ne maa ko fekke kii ne maa ko bind yàlla mu ne noonu laa ko xamee woon mën a bugg waaye tey laqad istadd gadabi ala man qalla xayaauhu alayya tey sama mer mi dana tegu ci kaw képp koo xam ne danga danga maa ñàkke woon kersa man yàlla yastaxfuna min annas wala yastaxfuna min allah wa huwa maahum rus nañu tey nit ñi lool waaye est-ce que rus nañu yàlla boo nekkee ci biir jaam ñi ñu lay teg bët nga bàyyi leen nga nga may leen bàyyi leen xel ci li ngay wax ci ni ngay doxee ci ni ngay solee ci lépp nga bàyyi xel nit ñi waaye yàlla nag wala yastahyuna min anna min allah wa huwa maahum duñu rus yàlla te yàlla mi ngi ànd ak nun kon ndeke kersa paase na fi ñu koy natt ñun lu tax ndax dafa nekk benn keno ci keno yu ngëm yàlla moo tax yonent bi ne moom kersa day ku ko bëgg a defal yàlla foog nga jox ko dëgg-dëgg àqam ba sahaaba yi laajee yonent bi lan mooy dëgg-dëgg àq yi mu ne bopp bi ngeen aar ko ak la mu ëmb bët yi nopp yi gémmiñ gi ñu ne ko ndax foofu rek la yem mu ne wal batna wa ma hawa ngeen aar biir ak la mu làq démb góor bu daan xëy démb bu góor daan xëy di génn këram jigéen ab jullit day jàpp ci loxo bi bu demee ba ci buntu kër gi ñuy tàggatoo ñoom ñaar nuyonte ku jigéen ki day jàpp loxo ku góor ki ne ko ittaqillaha fiina ragalal yàlla ci nun lu xew mu ne ko lépp looy indi ci kër gi na dagan ndax ñun mën nañoo muñ xiif wala wala may waaye mënuñoo muñ safara ragalal yàlla ci ñun ñun sa njaboot bul nu indil lu araam bul dugal ci kër gi lu araam lu nuy lekk lu nuy naan lu nuy sol lu ko waral ndax ñun mën nanoo muñ xiif waaye yëgal ne yowmal qiyaam mënuñoo muñ safara wallahi dëgg la kenn ci ñun mënul muñ safara kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam yokkal sahaaba yi ne leen an tazkura al mawt na ngeen di fàttaliku dee fu ngeen toll bokk na ci li nit li koy yokkal kersa li koy bëril kersa mooy muy xalaat dee fu mu toll mooy xalaat ne da nga dee di nga rusa toog di di seetaan film boo xam ne wala combat boo xam ne wala ngay déglu loo xam ne wala ngay lekk loo xam ne dafa am benn benn góor gu mag ci salafu saalix la bokk doom ji da ko ne waaw bàyyi yow li ma laata naamul layl lu tax doo nelaw guddi lu tax yow bu guddee rek doo tëdd sa lal bi mu ne ko damay bañ malakal mawti ñëw fekk maa ngi ci kaw lal bi noonu malakal mawti di bett ma xam nga kooku kon bàyyi na xel boromam bàyyi na xel boppam Ousmane ibnu Affan dee ngeen ci kersa gu mu amoon yonente alayhi salaatu wasalaam mës na tëdd ku ñëw di ko nuyu noonu mu tëddee rek noonu la lay joxee loxo waaye bi mu déggee Ousmane ne assalaamu aleykum yonente dafa jógaat toog daa di defaraat ay làmbaayam ay sërëm mu ne yonent waaw yow de ñu bëri ñëw nañ fi nuyu la ni nga tëdde woon changé wu position lan moo tax Ousmane daa di nuyoo rek nga jóg defarwaat mu ne kii malaaka yàlla yi sax dañ koo rus man ku ma ku yàlla rus malaaka yi rus ko man yonent dinaa ko rus boroom xam-xam yi ne Ousmane bu daan tëdd waxuma la sax mu nekk Medina waaye bu daan tëdd moom kese xam nga ñun tey allahu akbar ñun kër goo dugg di nga fekk lampe vase ci lampe vase ci ci bopp lal bi alaysa kazalik vase boobu lu mu fay def ku nekk ci ñun xam nga ko ñu ne Ousmane moom bu daan tëdd day fay lampe bi benn ñaar buy simmeeku day sangu ba pare ci biir mbalaan bi ci biir lay simmeeku ñun dañuy simmeeku taal làmp moom day fay làmp sangu ba pare doog a simmeeku lu tax rus borom bi tabaraka wa taala ñu ne aadam lamma nazala min alsama ila al ard makasa salasina salasa mi asana lam yarfa ra'sahu ila sama limaza li xayaa subhanahu wa taala lenn ci borom xam-xam yi dañoo nettali ñu ne Adama alayhi salaam bi mu lekkee ci garab gi yàlla dax ko dégagé ko biir aljanna wàcce ko ci suuf Adama bi mu ñëwee ci kaw suuf toog na ñetti téeméeri at xoolul kaw asamaan lu tax. ndax rus borom bi tabaraka wa taala ci benn bàkkaar boobu mu am kon mbokk jullit yi nanu góorgóorlu delluwaat ci jikko lislaam yi contrôler sunuy langage contrôler sunuy jëf sunu dugg ak sunu génn ñu sàmmante ak njàngali nu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne akmalu naas xayaan akmaluhum xayaa akmalu naasi xayaatan akmaluhum xayaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit ñi ki ci gën a mat dund ki ci gën a baax dund mu ne akmaluhum xayaa mooy ki ci ëpp kersa ndeke dund gu baax du ñun tey ci valeur yi ñu koy nattee tey kenn ci ñun bu amee barab bu muy liggéeyee di fa génne ay millions am dëkkuwaay bu lix am waruwaay bu lix am soxna wala ay soxna wala am nangam ak nangam lu ñuy wax diw texe na diw rëcc na du dindam dundam baax na nekke du loolu mooy nattuwaay bi nattuwaay bi mooy li yonent bi ne akmalu naas xayaa nit ñi ki ci gën a mat dund ki ci gën a baax dund mu ne akmaluhum xayaa mooy ki ci gën a baax kersa ki ci gën a mat kersa ki nga xam ne digganteem ak boroomam kersa am na fa digganteem ak malaaka yàlla yi kersa am na fa digganteem ak jaami yàlla yi kersa am na fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na inna li kulli diin xuluq wa xuluqul islaam alhaya yonent alayhi salaatu wasalaam nee na diine joo gis am na jikko waaye diine ji di diine lislaam yonent bi nee na jikkoom mooy kersa gis nga ndeke lislaam diine la joo xam ne diine ju bëgg ay valeur la diine yu bëgg melokaan yu baax mooy jullit bi léppam baax lépp waxuñu yére bi rek na baax waxuñu yaram bi rek baax waxuñu dëkkuwaay bi rek baax waxuñu waruwaay bi rek baax waaye dañu ne sa jikko sax na baax sa lépp na baax lépp na baax ñun nag tey ndeysaan suñu yére yi bu baaxee rek wala ñu defar suñu dëkkuwaay ba mu baax wala suñu waruwaay ba mu baax rek ñu ne mbir mi baax na fekk déedéet fekk dafa des nekk suñu jikko pour nu baax nekk suñu jikko foog mu baax moo tax gis nga bokk na ci ñaani sunna yi boo xoolee seetu nga ni yow yàlla ni nga rafetalee sama melokaan yàlla nga rafetalee noonu sama jikko allahumma kama hasanta xalqi fahsin xulqi yow yàlla nii nga ma taaralee ci sama melokaan nii ma taaroo ay waay yow yàlla yàlla nga taaralee noonu sama jikko kon doomu ndey mbokk yi ci yàlla mu ngi soññ suñu bopp di soññ mbokk yi ñu delluwaat ci jikko lislaam yi góor góorlu sunu digganteeg sunu boroom góor góorlu sunu diggante ak sunu bopp ñu xam ne mënunoo texe ëllëg mun noo am dund àdduna ëllëg ñu am taraanga te mooy yàlla jël ñu dugal ñu aljanna lul jikko yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam soññ nit ñi dañ koo jikkowoo bu nu defar sunu yaram yem ci defar sunuy dëkkuwaay yem ci defar sunuy waruwaay yem ci defar sunu yem ci waaye nanu defar sunu jikko aussi ndax jikko moom mooy doomu aadama yenent bi bi muy joxe misaal dafa leen ne diine joo gis dafa am jikko inna li kulli diin xuluq waaye islam moom lan mooy jikkoom mu ne alxaya kersa bokk na ci li tax nit baax bokk na ci li baaxal nit mooy lan mooy mu am kersa moom kersa moomu dafa am ay darajaat dafa am ay daraja am ay degré bi ci njëkk mooy alxaya min allah allahu akbar mooy daraja ji gën a rëy te foofu la nit di rëccee moo tax sunu baram sunu borom subhanahu wa taala mu xamal nu ne mu ngi nuy gis dégg naa benn waay dafa amoon photo sëriñam mu tiimal ko bopp lal bi mu takk soxna soxna si sëy si première guddi ak moom mu jékki-jékki rek mu xool rek gis photo sëriñ bi mu ne ah kii de dama koy génne néeg bi kii de dama koy génne néeg bi soxna si na ko génne néeg mu ne daf may xool gisul léegi mu daal di koy jël yóbbu ko beneen place waaw allahu akbar ayna allah ana la ana yàlla xoola kooku bu eggee foofu ci photo su nit eggee foofu ci photo est-ce que bu nit eggoon foofu ci yàlla dina tarxiis inna allaha maana yàlla mi ngi ànd ak ñun kon daraja bi njëkk gën a rëy ci kersa mooy alxaya min allah ndeysaan nga rus yàlla nga rus yàlla foo nekk borom xam-xam yi dañuy wax ne isa xalawta yawman boo wéetee bul wax ne man wéet naa waaye faqul alayya raqib waxal ne am na ku may fuuglu am na ku may xool dégg ngeen ñett ña génnoon dem ca àll ba buñ demee guddee wala dañoo bëggoon fu nu fanaan ba nu duggee ci xuntuma xeer bi bërëngu daal di fàtt bunt bi ñooñu ñett mbokk yi ba ñu nekkee ci biir xunt mi ñu xalaat lan moo leen di génne tey parce que mënuñoo puus xeer bi te fii ñu nekk kenn yëgul ne ay nit a ngi fii lan moo leen mën a musal kenn ku nekk dañu ne ah nanu xalaat jëf lu ñu duñ defaloon yàlla xëy na jëf jooju dina nu musal kenn ku ci nekk ci ñoom am na lu mu wax ñett lañ waaye kenn ki mooy ki bëggoon doomu bàjjanam bi lan la wax man de bëggoon naa benn xale bu jigéen mu wéet ak moom dara desul lu dul mbir mi sotti na mu ne ma ragalal yàlla ci man bul jël loo moomul bul dindi loo moomul mu ne ma ni bërëg taxaw yow yàlla bu fekkente ne loolu ma defoon yow yàlla yaa tax yàlla xeer bi na yëngu xeer bi daal di yëngatu noonu ñett noonu lañ ko jàppee kenn ki ne amoon naa ndey ak baay waaye kooku noonu moom lan moo tax mu bàyyi xale bu jigéen bi mooy kersa gu mu dox digganteem ak boromam parce que yëg na ne yàlla nga koy gis am na keneen koo xam ne dañu ne dafa jàpp bunt yi di tëj di tëj di tëj ba bunt yëpp tëju ba mu des mu war a simmeeku ndaw si ne ko am na bunt boo tëjul de mu ne ban bunt mu ne bi dox sama digganteeg ak yow ak sunu borom mu tiit mu daal di bàyyi bàyyi ndaw si dem kooku am na kersa ñun tey suñu problème bu mu gën a rëyle mooy rusunu yàlla ci suñuy wax ci suñuy jëf bu ñu tarxiisee tamit sax yenn saa yi duñu tuub li li mbokk mi doon wax léegi léegi wala li may bëgg a wax de yal na ma ko yàlla baal après daal daal di koy wax. wala li may bëgg a def maa ngi koy def bu ma paree ma tuub te xamuñu ne dee day betti dee day bettee mën ngaa def doo tuub keneen ka lan la wax. man amoon naa ndey ak baay sama ndey ak sama baay ñoo ma gënaloon lépp lu ma am li koy firndeel mooy benn bis ratt naa soo war leen jox reer ñu reer ma ñëw fekk leen ñuy nelaw ma teg ko noonu di bàyyi di xaar ñu yeewu ba ñoom ñaar noonu la nu fanaanee reeruñu samay doom di jooy ba bët set lu ko waral mooy damaa bëggoon sama ndey ak sama baay lekk ba pare samay doom doog a lekk yow yàlla bu fekkente ne lii ma defoon yàlla rek moo tax ngalawaay yow borom bi indil dindil ñu xeer bi xeer bi daal di yëngatu kon ñaar ñee lan ngay dégg mooy ñoom ñaar seeni jëf yàlla nangu na ko kon ku ñetteel ki war naa tiit ndax ñaar ñi moom leer na ne yàlla nangul na leen ndax ba nu waxee bi ñu seedeelee ne yàlla bu dee ne yàlla dëgg la yow rek yaa taxoon dindil ñu xeer bi xeer bi yëngu na mu des kenn ki mu ne man it liggéey loo woon naa nit dara desul lu weer dee na ma war ko fay waa ji dem yoonam ma jël xaalis ma ko waroon fay ma dem jënd ci ay jur jur yooyu daal di jur benn xur ba xur yu fees benn bis rek waa ji ñëw ne ma xàmmee nga ma te yow la kan ne ko maa la liggéey man maa la liggéey loon weer dee nga war maa fay ma bàyyi fi sama salaire dem tey nag moom laa jël si mu ne ko xur wi yëpp yaa ko moom bu doon kenn ci ñun tey lu muy def ñaata la woon ko fanweer mu daal di indi fanweer jox ñaata la woon 10 000 mu jël 10 000 jox xoolal waa jooju ci ragal yàlla ne ko xur wi yëpp yaa ko moom lan moo tax mu ne ko xur wi yaa ko moom parce que alal ji cosaanu alalam la moo ko jur alalam ji mu jëndoon moo ko jur mu daal di guub yëpp yóbbu moom it bàyyi wu fa sax mbote yow lu yàlla bu fekkee ne yaa taxoon ma def yow yàlla waay lii na na deñ waay rek xeer bi daal di ubbeeku ndeysaan benn borom xam-xam bu mag bu ma doon liir ba yegg si muy firi hadis bi bi hadis bi jeexee taaliq bi mu ci def mu garaaw trop mu ne ñi ñaata lañ woon ñu ne ñett mu ne waaw ñooñu buñ doon ñeent te yow mi yaa leen ñeenteel yow looy wax allahu akbar mbokk yi waa ji laaj boobu mu laaj maa ngi koy laaj sama bopp di leen ko laaj bu fekkoon ñooñu ñeent lañ te ñun ñi ñeent lañ te ñun ñi toog fii kenn ci ñun yaa ñeenteel yaa ñett ñeenteel ñooñu yow lan ngay wax muy lu muy lu jar a bàyyi xel muy lu tax nga yeewu guddi waxtu kenn du yëg yaag sa borom nga fexe def loo xamante ne ëllëg boo tolloo foofu nga jël jëf yooyu jaarale ko sa diggante ak sa borom loolu guddi la wala bu dee bëccëg ci bëccëg bi nga jéem fee def ay jëf yoo xam ne ëllëg ak si biir boo tolloo ci mbir yooyu nga jaarale ci sa diggante ak sa borom ak waxtu bu mu mën a doon war ngaa bàyyi xel sa diggante ak sa borom loo koy defal ëllëg. luy jar nga ni yàlla lii dey bisu sàngam yow yaa taxoon ndax ñetti ñi ñoom bañ ci tollee seedeel nañ yàlla ne mbir yii yàllaa taxoon yàlla daal di nangu kon mu ne bu doon ñun ñooñu ñeent lañ te yow yaa leen ñeenteel lan nga fay def beneen kersa bi mooy alxaya min ar rasul xanaa dina nit dina wax ne nan laay rusa yonent bi dee na gisatuma ko rus yonent bi mooy sallallahu alayhi wa sallam léegi da ngay gis ci sunu jamono fii nu nekk benn waay day julli ba pare rek commencé rëdd ci ay sijaada naan nii wala di di capp di def ci jëm wala di ñaan di ëff ginnaaw loxo wala di def yëfa yoo xam ne soo ko ne waa yow yow seex bi yow lii ngay def foo ko jëlee mais lii sama kilifa gu baax moom ma ko jox sa kilifa gu baax googu moo la jox lii ba bëggoo koo bàyyi léegi yonent bi la indil diine ji nag kan moo gën a yey tey noo rus yonent bi ci lim nu indil jële ko ci yàlla ñu rus ko mu doy nu ñu dëggal ko ne ci yàlla la bàyyee ko benn mbokk dañ ko laaj benn laaj ne ko waa yow lu tax ngay julli di wàcce loxo mu ne parce que sama sëriñ nii lay jullee rus naa di wuuteeg moom wala rus naa di wuuteeg sama sëriñ waaw léegi yonent bi ak sëriñ boobu kan lañ war a gën a rus dama laajte yonent bi ak waa jooju kan lañ gën a rus du yonent bi moo ci gën a yay léegi naka ngay rusee sa sëriñ indil na la lenn ne la lii la nga jël loolu bàyyi la yonent bi indi loolu mooy suñu problème mooy li yonent bi indi yëpp comme yonent bi nekkatu fi la ñuy wax ah est-ce que est-ce que sax moo ko wax est-ce que nag ñoo koy gëstul rek laajteel bis boo yëgee ne dëgg la yonent bee ko indi sunu benn pap dafa dem aji moom li mu xam mooy bàmmeel moom bërëngu rek diw sa kanam raay rek diw sa kanam loolu la xam ci bàmmeel ndax sunu bàmmeel yi fii noonu la ñuy def da ngay gis ku dem ci bàmmeel rek raay ci karo yi ndeysaan dama ànd ak ay meer yóbbu leen kër gi yonent bi juddoo ñuy ziyaare kër gi ñu ñëw rek daw rek songu miir bi naar bi ne ne ma cheikh cheikh ma ne ko naa mu ne ma haza hajar qul lahum haza hajar ñu ne ma lan la wax ma ne naar bi ne ne lii ciment la laalu leen yonent bi yonent bi nekkul fii ngeen lii tabax la ciment bii ngeen di laal moog ciment bi nekk ndakaaru benn kese la xeer la amul njëriñ wax na dëgg mais duñ dégg de nga dégg ñu naan nan dimbali nu bu dee ciment yi ciment bi yaa gën di xulli tëdd xam nga sénégalais dafa alku su xam sénégalais boo nee ne xeer xeer la ñu ne la xeer bii moo gën ndax xeer yu am yooyu lañ lay wax mais yu dëgër bopp yoo xam ne sa yaram day daw waaw boo ne suuf si suuf la ñu ne déedéet yamul ñoom seeni xalaat lañ ciy dugal nu nu xalaat lee yeneen tamit lu mu wax kullukum min aadama wa aadama min turab arab yi atalaa mu ne lépp lu nekk ci kaw suuf suuf la lépp lu nekk ci kaw suuf mu ne yow mi dox ci kaw suuf sax suuf nga ndax minha xalaqnaakum lépp lu nekk ci kaw suuf suuf la amul ngëneel minha xalaqnaakum wa fiha wa minha jeex na su ko defee nit war na rus yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lan wuuteeg moom ci sunna si mu indi woon wuuteeg moom ci diina ji mu jàngale benn sahaaba bu daan topp njàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lépp bu yonent bi daan faji aajo daka daan téel ndox mi bu yonent bi demee ba sori ne ko yemal fii mu yem yonent bi jël ndox mi waat dem benn bis rek yonent bi ci ni mu doon faj aajo mu siggi xool waa ji di ko xool waxul dara moom nu rawul ak nun tey ku ko defoon ku ko sa njaboot defoon musiba am wax ko dara fu mu defaroo ba pare ñëw fekkaat waa ji fi mu taxaw mu jox ko ndox mi ñu dem ay tànk jéego mu ne ko yow yow de gis naa la tey nga may yër lu ko waral mu ne bëggoon xool nooy toogee bu ma mbir mi dawee ma toogee noonu balaa may wuuteeg yow yàlla di ma alak falyaxzari alladina yuxaalifuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim yàlla nee na moytu leen wuuteeg yonent bi su ngeen wuuteeg moom dinaa leen teg fitna ci àdduna naa leen teg fitna àlaxira ngeen te am fitna ci àdduna àllaaxira yàlla mbugal leen mu ne loolu dong la moomu ci dugal bañ a wuuteeg yow rek bëgg a gis ni nga defee ma defee noonu loolu mooy rus yonent bi imaam ali mar na naan mu laaj ndox ñu indil ko ndox ci jamono tàngaay ndeysaan mu naan naan bu rafet teg guux daal di teggi ba mu nekk ñett ñetti yoon la naan ndox mi après bi mu paree mu muuñ kenn ci saxaaba yi ne ko waaw imaam yow day naan ndox rek lu ci indi muuñ mu ne nii la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon naanee moo tax ma naanee noonu nii la ko yonent bi doon defee moo tax ma defee ko noonu kon nan góorgóorlu rus yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy nga xool sa dund ni ngay dundee lépp luñ la ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nii la ko doon defee nga jéem sa kéemtalaayal kàttan nga defee ko noonu bu dee ñaan la nga jël ñaan boobu bu dee aw jaaminu yàlla la jaaminu yàlla boobu nga jël ko bu dee aw doxalin la nga doxali noonu bu dee dundin wi la nga jéem a dundee noonu mbokk jullit yi loolu mooy rus yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ñu wuuteeg moom ci lenn ci wax ak jëf beneen ñetteel bi ñuy jeexalee mooy alhayaau min annaas war nañu rus jaamu yàlla li ñu nekkal aussi xam ne ñooñu dañoo am ci ñoom ay àq ñu jox leen seen àq ba mat ci rus leen bañ leen indil bàkkaar est ce que xam ngeen ne nit dana def bàkkaar këram génn jaar ci mbedd mi di jox nit ñi ay bàkkaar nit dina mel melokaan boo xam ne saa yoo génnee ku la xool am bàkkaar ku wax am bàkkaar koo rom mu am bàkkaar xoola yonent bi ne jigéen bu xeeñoo parfum génn mi ngi njaaloo góor gu mu xeeñ rek mu ne njaaloo naa ak moom góor googu mu xeeñ yonent bi ne njaaloo nga ak moom kan moo tax mu njaaloo yow wala yow mi mel melokaan boo xam ne jaadul ba nga génn kooku teg la ay bëtam mënatul sajj kooku bàkkaar yooyu mu am kan moo ko jox yow wala yow mi def benn jëf joo xam ne ba nga génnee ñëpp wax nañ ci nga yóbbe ñëpp bàkkaar kan moo yóbbe ñooñu bàkkaar yow kon war nañu rus julliti yàlla yi nu dëkkal ci bañ leen yóbbe bàkkaar bañ leen yóbbe meru yàlla tabaraka wa taala loolu lan moo ñuy dimbali mooy ñu sàmmante ak charte yi nga xam ne moom la ñu lislaam wax ñu jëm suñu dund suñu kemtalayel kattan ba lu ñuy dégg ci ñun mu nekk lu rafet suñuy jëf mu rafet suñu jikko yi ñu rafetal ko suñu melokaan ñu rafetal ko suñu nekkil ñu rafetal ko ñu bàyyi xel loolu ñu bàyyi xel ne jullit bu nekk ci benn buntu kër nga taxaw buntu kër googu waroo koo ubbi ba noon yi di am ndam ci lislaam sànq ci suba benn mbokk daf ma woo France mu ne ma dafa am fii daal temps yi li fi xew mooy di takk jigéen boo amee këyit nga fase ko mu ne ma am na benn mbokku jigéen boo xam ne tubaab la de mu ne ma benn algérien moo ko njëkk a takk am ak moom ñaari doom am këyit fase ko mu ne beneen benn tubaab bu moom tamit jullit ñëw takk fase ko mu ne beneen étranger ñëw takk am këyit fase ko léegi ndaw si moom nee na dootul sëy ku weex ndax nee na ñu weex ñi dañ koy trahir rek ay këyit daal lañ koy doy ay këyit ku am këyit fasak est-ce que loolu melokaanu jullit la est-ce que jullit dina wor est-ce que jullit dina wor kon jullit war na am kersa ci ay moroomu nitam war na fexe ba ëllëg ak si biir du ñu wax yow day yow yaa def jullit bii lii yow de lii yow yaa ko def jullit yi kon mbokk yi tomb yi laa tënkoon loolu mooy première genn benn genn wàll bi ci waxtaan wi ñaareel bi mu nekk ci yéen ci mooy ay laaj ak yiñ ci yokk bu fekkee am nay njuum te ñu ngi koy jéggalu suñu boroom asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillah
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جزا الله خيرا شيخنا وأخانا وأستاذنا خير ما يجزي به عباده الصالحين amin ya rabbal alamin ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mbokk mi yàlla yàlla fay ko yiw amin amin te sàmm ko sàmmal ko njobootam defal ko tawfiq ak taysir fi dunia wal axira amin ya rabbal alamin
wax dëgg yàlla jëluñu pour def ay taaliqaat déedéet ndax mbir mi leer na lool te jàpp na ne lu leer bàyyi nit ñi dem jëriñu ko moom moo ëpp solo ñetti baat yu gàtt yoo xam ne benn bu ci nekk rek xëy na nit dana xam waaye nga baamul ko mbir baamtu googu tax bu demee gën cee bàyyi xel ñett yi benn bi mooy mbokk bi muy tàmbali nee na yonent bi day sallallahu alayhi wa sallam dani su fekkee yàlla dafa nam ma alak ab jaam daf koy xañ kersa loolu ni mbokk yi wax ju wax ju rafet la wax ju jara xalaataat la sunu borom bu la naree alak daf lay xañ kersa mu des kenn ku ne ci ñun nag mu xool ndax moom kersa boobu mu ngi ci moom wala déet bu nekkul ci moom bu fekkee nit la ku nitee war naa tiitaat ci boppam ñaareel bi wax dëgg yàlla man moo ma gën a marqué ci waxtaan bi mooy taarix bu am solo boobu mbokk mi def yàlla de laay seedaloo lii may bëgg a wax man bi mu koy wax maa ngi natt sama bopp bu fekkoon man la man loolu laa doon natt jamono jooju yàlla yàlla fay yiw ko def taarix boobu ak moom mi ni ko jot bi amin ya rabbal alamin ñooñu ñett lañ bu fekkonte ni kenn ci ñun moo leen ñeenteel yow lan ngay wax lan yaakaar naa xissa boobu semaine bi passé rek maa ngi koy nekk li ci suñu dal saxaar saxaar muskile bi mooy bu doon yow la baa mu nekk man gan jaamu yàlla nga yóotu boo ma sa def man li may faral di wax ci buntu boobu benn la mooy bu doon ñu nag bu doon man a bopp man la sama bopp laa xam bu doon man la wallahi maa ngi seedaloo yàlla bi nga xam rabbul arshil karim jaamu yàlla bu ma xool du ma ñemee laal dootu du ma ko wóolu maanaam bu doon noonu la kenn man wala yéen même bu fekkee am nga loo yaakaar ci say jëf sax doo wóolu donc boo ñemee boo dem bay bëgg a laal rek am na lu sa xel di daj ndax nit doful nit ku yàlla may xel mu di jaamu yàlla am na xel muskile bi mooy kon bu la lii gaaroon lan ngay laal yow bu doon man mii la amaan na maa ngi am lu sama xel di daj na ah lii de mas naa ko def xëy na yàllaa taxaw waaye yàlla xam ne ne même bu ma koy jéem a yóotu du ma ko wóolu déet maa ngi am sikki sàkk nag est ce que amul lu ci rax te yëgu ma ko kon taali bi boobu mbokk yi lu mat a bàyyi xel la mooy ñett lañu woon su fekkoon ñeenteel bi yow la lan ngay wax beneen bi ci des nag bi ci topp moom ab ndénkaane la mooy jox mooy daje yu mel nii bokk na ci li may ñaax suma bi leen ko ñaax mooy ñu fexe suñuy borom yi xam-xam yi nga xam ne ñu ngi ci biti di ñëw ñuy istifaadoo ci ñoom di jariñu ci ñoom ndax saaxa bi lu yaatu lool la te jàpp naa ni tey jii am nañ problème ndax amuñu problème mu xam ndax li ñuy wax lu ci bare bare amaana dégg nañ ko problème bu jëfe lañ xam waaye amaana bu nu suñu borom defalee tawfiq nga yëpp ay borom yi xam-xam yoo xam ni yàgg nañ ci daaw bi xam nañ saaxa bi lañ ñuy indil ci ay njëriñ amaana ñu mën koo jëriñoo yàlla suñu borom boole waxtaan wii ci yi muy barkeel ba mu tàbbi suñuy nopp ak suñuy xol tey bu fi jógee mu def jeexintal boo xamante ni jeexintal bu am solo lay doon ba keroog ñu daje suñu borom.
amin ya rabbal xëy na ñu jox ko mbokk mi mu bu amee ay taaliqaat wa illaa bu amee laaj bu ñëw.
alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah dañuy wax ustaaz jazakumullahu xayran ci thème bi nga ñu indi ci waxtu bi nga ñu ko indilee dañ ko soxlaa dëgg dëgg dëgg ndax man li ma dégg ci wax ji su fekkee ne ñépp dégg nañ ko insha allahu danañ ko jëriñoo am na lu ñu manqué ne lool muy rus ñi ñu war a rus mbokk mi leeral na ñan lañu war a rus dale ko ci sunu boroom teg ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam teg ci ñun ci suñu biir gis nga bee duma ci wax mooy bi nga xam ne mooy rus yàlla subhanahu wa taala te moom moo jara wax du ma wax ci rus muhammadin sallallahu alayhi wa sallam te moo jara wax bi may wax mooy bi mujj nga xam ne moo gën a tond bu ma waxee njariñam kon day ëmb lépp maanaam ya ca rew ya ca des bokk na ci rusante ci suñu biir lim ñuy jariñ mooy dañuy ragal a def lu ñaaw mag ñi démb dañ daan wax jomb naa def nangam diw dégg ko rus na maa wax nangam diw dégg ko loola tax laa bàyyi lu bon di def lu baax tey jii nag wow bët la ñuy jaayante dangay wu dalay wóor na ne diw mi may kilifaam man la war a déggal man mi maa ko war a tere mu dégg mu mu bàyyi maa ko war a digal mu def mais da ngay wax ba pare mu ne la wa gis nga jam gis nga ne fi nekk nii man sama bopp du ma ko jaay kenn du ma gënali kenn ak nangam ak nangam sama bopp ma la gënal du bañ naa la yooyu mooy ñàkkuk rep repp nga te man lii may wax nii maa ngi koy jëmale ci way dencante yi fi ñu toll nii tembe ñàkk ku ñu rus moo tax li ñuy def ñu di ko def ñàkk ku ñu rus moo tax musiba yi leen di dal di leen dal xool leen sëy yi tas ci jamono ji nga xam ne ñàkk yar ñàkk teggin dong moo koy def waaye seet leen réccu ya nga xam ne moo cay tegu benn góor ca faas ku ma xam sama baay mu ne ma diw de yi dafa nekkoon ci dëkk bi rek bu takkee jabar rek fase bu takkee rek di di takk di fase mais ku mu fase rek keneen takk ko ci dëkk bi loolu la ko yàlla nattoo ku mu fase rek keneen takk ko ci dëkk bi benn bés nag mu tëdd ci tooj gi jigéen ñi romb jeeg ci roon di di root ci ci teen bi di romb muy gis ñi mu doon fase gis leen seen i melokaan ak ni ñuy liggéeyal seen mu ne tey waay man de maa tàggatal gars yi seen jabar yi mu ne moo leen tàggatal ay jabar parce que ku jaar ci moom mënut a fexe ba jot te ca leen mokk nañ nem mu ne waaye nag damaa ñàkkoonu repp nga xam nga luy aw repp nga nga bëgg a def dara sa kilifa nag lan nga bëgg a def repp nga de ba nga def ko nga dellu gannaaw nga dellu gannaaw loolu mooy aw repp nga tey jii nag góor ñi amuñu repp nga jigéen ñi amuñu repp nga moo tax li leen di daal dal bërki démb rek ña xam nga li may wax benn jigéen ñëw na yendu sama kër ba ngoon jot mu ngi ñëw ay 11 heures ñu dugg sama néeg mu di ma wax ci borom këram bu ko fase booba ak léegi juróom-ñett juróom-benn at la 6 ans mu ngi jooy jooy yu metti pour na ko waaji takkaat billaahi wallaahi fa la nekk ak man ñuy waxtaan ba tisbaar ma julli ci ci jàkka ji dellusi fekkaat ko fa mu nekkaat fa bañ julli tàkkusaan ma julli ci ñëwaat fekkaat ko fi ba heure yi la jóg a yeewu lu ne wax na ko wax na ko ñàng wax ko suñ yeneen i xarit pour lan pour waa ji jël ko waaye waa ji ñimeetu koo jël ndax fit na yim daan dund ak moom mais dafa ëpp ay doomam a nga fa di màgg ay doomam a ngi foofu di màgg xoolal alak sa doom weesuwul nga jërimal jërim loo ko te baayam di dund mbaa nga bàyyoo loo ko te yaayam di dund lan laa bëgg a wax soo fasenteeg sa jëkkër ngeen am doom doom yooyu jëkkër ji yokk ànd ak seen tànt doom yooyu dootuñu yaru dafa mel ni ya ñi ñàkk yaay lañ amuñu yaay dootuñu leen mën a yar seen tànt lu mu baax baax baax baax lu mu mën a mën a yar dana am yoo xam ne du fa mën a yegg parce que dañ naan juróom su ko defee doom yooyu ñàkk nañ su fekkee ne yow yaa ko yóbbu ci beneen baay mu nekk baay doo baayu jiit leen nam ko war a yare du ko ko mën a yare nañ leen bàyyiwaat xel yi yëf yi du ngone mais bëgg bakkan topp sa bakkan la topp sa bakkan baaxul kersa gi ñu war a am mooy nañu rusante bu ma ñëwee ne la mbokk lii nga bëgg a dugg génn ci nga rus ma rus yàlla xam ne sa nawle laa wut la ma la lu bot te loolu bunt la ci yow ëllëg fu ma nekkee ci benn problème situation bu mel noonu nga mun ma ci génne mais soo rusul kenn watu bul faale mbaa nga létt bul faale wan ma ginnaaw wan ma ndox ma wax ba pare nga ne ma gis nga man li ma doon dund maa ko xam man li ma doon dund maa ko xam pourtant man xam naa ko mais nag gis nga tollu tey neexoo waxal parce que sa sa sa maanaam fa nga yegg tey ci ñàkk am koo rus am koo jomb dëkk bi yépp ni mu toll ñépp nga boole leen dugal ci benn mbuus ne ñoom ñett intérêt waa ji lañu wut mbala ma intérêt ndaw si lañu wut ba déggaloo ko nga tas sa kër fase say jabar ñu tasaaroo ngay wutiwaat beneen wala nga tas sa kër bàyyi sa jëkkër foofu wuti fa wutiwaat beneen jëkkër loolu dafa nekk loo xam ne li ñàkk kersa weesuwu ko nañ leen delluwaat di rusante di bàyyante xel tey laa mujj di téléphoné borom xam-xam yi incha allah kenn ku nekk ma téléphone ma ne la maa ngi lay dénk dama lay ziare waaye maa ngi lay dénk ne la man mii de sa nawle laa loo dégg ci man mu loo xam ne drapas la maa ngi bëgg a wàcc yoon wi ma jaar may naa la ci sama bopp droit bu tolli na nga ñëw wañ sama loxo moo xam sama biir njaboot la moo xam ci sama pas-pas la moo xam ci li may liggéey fu may liggéey la defe naa ne Oustaz Niang Mbaye woo naa la téléphone li seede la bon loolu li ma tax ma di ko wax nekkiwul ne damay wane la may def déedéet mais damaa xam ne loolu ñun ñëpp loolu ñoo maanaam dañu war a nawloonte man fii ma nekk ci Mbambilor war naa feet rus a def loo xam ne léegi Seydou li da koy dégg war naa ko rus loolu mais su ma ko faalewul ma def la ma neex comporté woon na ma neex mu dégg ko métit wa muy am ci xolam ñàkk jom gi ma ñàkk jom moo tax ñàkk kersa gi ma ñàkk cegar ma ko ko teg man samay doomi ndey samay bokk ñoo ñëpp dama ku ma ci woo téléphone dama la naan man de rusal naa la fii ci Bambilor kon rusal ma foofu ci kaw la wala rusal ma foofu loolu mooy kersa mbokk jullit yi te loolu dafa amoon démb moo xam jigéen la moo xam góor la am fi bàjjan mais am fi nijaay ju lay waar wala am fi xarit léegi nag xarit yombut bu doon mën a yi daa bari te di wolof dafa wax ne dëkkal ma yen la jàppal ma yen la ji ci ba bawol waa bawol bawol ñoo ko jàppal ma yen la ji ci bawol du bëgg laa yen waaye bëgg a xam li ci sa ndabul moo tax nañ bàyyi xel ci loolu su doon mën a yàlla jënd loola fasu yaa biir te du la ko guble loolu lépp moom mooy tax nit ñi dugg ci li nga xam ne waruñ ca dugg maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp lu nekkoon ay rëcc rëcc yi dox suñu diggante yàlla na ko yàlla raxas ba mu set wecc nañu rusante jëwante nañu rusante tooñante nañu rusante suxluwante suxlu nag xam naa ne bu rek wala du ko ma Dakar du ko xam suxlu mooy ma ne ci dara di ko def keneen ci dara di ko def ngay ñëw pour ma tol fakastal ma pour li may def yàqu pour que li mën a réussir loolu ñi daan mariage dañ ko daan def suxlu mooy waxal la point bi nga xam ne moom nga war a dugal pour que li mën a am gàllankoor que li avancé loolu du loolu du loolu du du ngor du mbaax su ko defee ñu xam ne ay nit lañ ay jullit lañ ay bokk lañ ñoo bokk sunna ñoo nekk ci daawa bi fi mu ne nii foo dem Bambilor ñu ngi naan Bambilor Bambilor Bambilor ndax lan ndax bari ay mbokk waaye loolu na fekk ne pas-pas bi na wér nañu dëggu nañu dëggu ci li ñu nekk ñaar ñu dëggu moo gën mbooloo moo xam ne puuka lañ te la koy windi mooy ñàkk kersa incha allah xam naa maa ngi mel ni ku bëgg a def tem encore waaye bu leen fàttali leen di ñaan yàlla subhanahu wa taala oustaz yal na yàlla fay la léegi incha allah mu ne dama am laaj
sëñ bi ëppoon na la wax jazakumullahu xayran
rasulullah ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli seen bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal mbokk mi doon def waxtaan bi yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala def ci ci misaani xasanaat léegi waxtaan bi suñu ko déggee dafay mel ni dafa tënk ci wàllu li nga xam ne moom mooy jëflante ci